salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu gis ni ça fait deux ans ngi lii de appel bi amul à cause du Covid 19. tey jii ngeen ñëw boole yéen ñëpp artistes yi boole ndey bokk ndey ba bokk ndey ak baay fekk kii di Moussa euh, na ngay dundee loolu. mais lii du lu bees. waaw waaw des années man ci commission d' organisation ñun ñoo yor organisation yi artistes yëpp a ñëw ñii di ñëw di dem ñii di ñëw di installé ñun ñu yor organisation bi d' habitude fee lañ ko doon def. ren fekk ñuy tabax foofu moo tax ñu yëg ci kaw ñeneen gan ñu yóbbu leen ci yeneen kër yi fële mais chaque année de gars yi ñëppay ñëw ñun dañuy fanaane préparer xaaral gan yi donc du lu bees quoi donc dañuy santaat yàlla ba affaire yi reprendre ba gisantewaat ñeneen ñi mais yeneen moom chaque fois ñu ngi gisee. waaw da dundee appel yi ren. sant yàlla sant yàlla rek comme daal ci dañuy ñaan rek affaire yi yokk ñaani yokk jàmm bi gën a am réew rek. Euh, mu ñu fi jógee te wax ñu actualité avant ñuy wax si série bi moo xam ne Virginie Sénégal yëpp ñëpp bëgg ko avant boobu dañuy wax si problème boo xam ne peut-être ça am na fu mu toll nii un an muy kii problème Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba léegi si Sénégal yi nga xaar justice daal di am ku nekk xam fu nga féetee ba mais ba léegi amul. waaw xam nga am na loo xam ne du sama domaine maîtriser wu ma ko lu ma maîtriser nag man duma ci wax Ousmane Sonko Adji Sarr affaire bi ñu ne mu ngi ci loxo yoon na yoon def liggéey man mënu ci wax dara parce que dum lu ma maîtriser xaw ma ci dara te man lu ma ci xamul du ma ci wax waaw. série Virginie fu mu Sénégal yëpp ñoo koy xalaat pour mu ñëwaat à quand. waaw loolu moom dañuy déglu rek ñu ne ndaw la ñu maison production bi la ñuy xaar des passages maa ngi nuyu Morodi ñëpp sans exception di nuyu réalisateur bi euh, Baye Mass maa ngi koy nuyu ba. waaw maa ngi koy nuyu Baye bu baax maa ngi koy nuyu ba donc euh, voilà. mais buñ tuddee Virginie il faut nga tudd maanaam Virginie moom moo nekk actrice principale bi euh, tey jii fu mu toll nii à chaque fois dañuy gis ba bépp ba yaayam gaañoo ba léegi Sénégal yi bëri peut-être à chaque fois day génn di naqar lu ko Sénégal yi di wax yow bu gisee Sénégal yéen kàddu yoo xam ne ñoo ngi ko koy wax nu mu lay def. non man lu may wax Sénégalais nañ ko ñaanal jigéen la xale la nañ ko réconforté du parce que yaayam dafa génn àdduna rek dafa war a tëju. du àdduna gaa yi ñu xool ci ginnaaw bi yaayam nekk fi saa moom ak yaayam daan nañu def ay vidéo daan nañu waaw béggee mais bon lu am am na pere kenn mënu yàlla sultam kenn mënu ci dara nañ ko ñaanal xale la loolu la am na nañ ko ñaan waaw. yéen jàpp jàpp nañu peut-être visite bu ñëwaatee moom dina si bokk. mais xam nga produit moom mënu ma ci waa wax wala déedéet. ci scénariste bi ak ak maison production bi la dépendre du ci man quoi mais en tant que acteur man fu ñu ma woo je réponds présent waaw. merci beaucoup. jërëjëf jaajëf